leen rek 2S mu ngi seen ginnaaw pour di leen bégal. mais xam nga nu may def. wax ma. yow yeggalil man maa ngi caqas nànk dox di yegg si. daf may neex ñëwal waaye Eva man li ma gis sa ginnaaw neex na ma xale yi niñ toogee noonu rafet na de. non macha allah plateau bi dafa ala daw me non bëgguma la ko nettali bëgguma la wax lépp lu fi xaw dama bëgg nga ñëw fii nga découvrir ak sa bopp. doxal nànk daagul nànk ñëw. ana maa ngi ñëw ak sama fleur. à tout à l'heure mon bro. dama bëgg gisanteeg ñi nga xam ne mooy waa orchestre bi gars yi nuyu naa leen yéen ñëpp na ngeen def bàyyee nag si jàmm sëñ bi bi moom la ñuy woowee clavier harmonie mayal tuuti ma xool yëngal ko ma gees ñëw lan ci Marimba ayca dóoral ma xool macha allah ci kan laay dem sax. non yow sama doomu baay xaar ma ma ñëw yow laay mujjee fii laa jëm guitare solo wala basse man la ci solo ay ca mayal ma bravo yéen yéenay kër si fu ngeen di génn yuuxu leen ma xool. tarba sa maax gi yàgg naa. booba léegi xaadi woo. gëm naa ni buur bi yàlla dina la fay sa sa maax gi yàgg naa. booba léegi xaadi woo. gëm <laughs> yow nee naa yow laay mujjee xaar ma maa ngi ñëw <laughs> ci batterie laa jëm bi mooy batterie non ay ca dawal dóoral ma xool ah, ci guitare gi bravo borom tama ñëwal ma xool yëngalal tamit jooju yëngalal ma xool raw taj ah sama doom baa ngi nii bii mooy ban bu ndaw ron tang nang nang dóoral ma maa ngi leen toppandoo sax ay li tàccu leen ko. waaye waa lii la la. mais sama xarit lii mooy 2S show lii la ñu mën a def pour accompagner mbokki téléspectateurs yi ba du ñu wéet seen kër. macha allah comme ni bëgg naa xam avant tout yow li nga yor mooy lan. lii wax naa gars yi ne leen ci la sa kër 2STV ne. ah te dañuy bàyyi ba bis 31 décembre ñu soog koo daaj xoolal mi ngi nii ci biir. macha allah oh c'est beau en plus. fi la secret bi nekk dañuy bàyyi mbokk yi ba bis 31 décembre ñu dajil leen ko ñu ngi leen di siyaare bu baax waa sama jigéen. am ma dénk la ko. Ah, man j'adore parce que dama xam nga couleur yi dafa ànd. dafa marié nga marié say couleur mais doomu de xam nga lu ma bëgg tey ñu wax mbokki téléspectateur. loo bëgg ñu wax orchestre bu yaa ngi toog ban artiste tey moo war a taxaw fii ànd ak ñoom. ñi ñooy waa super royal. Mhm. boo xoolee gisoo fi benn mag. ay xale rek nga fi gis di ay xale yoo am jom déjà. Mhm. li ma lay wax si ñoom. Mhm.